جل له فنخت وصرمدا بالملك والعم الفلد ولم يكن جل له كفلا وصرمدا بالملك والحمد الفلد أشهد أن له الإله الواحد وأن أحمد رسول الغابد والله لم يأتي وليس ياتي خلف كمثلي سيد السداد والله لم يات والله لم يات والله لم ياتي وليس ياتي خلف كمثلي سيد السداد سيدنا محمد سيد السداد جفدي خل مسلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu mbooleem ku teew ci jotaay bi ci turu waa daaira xadaa'iqul fadaa'ilu soppey sëriñ Massamba Kanni di jiital ci nuyoo boobu Cheikh Mouhamadul Fadel Bousso di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool ak mbooleem njabootu sëriñ Massamba Kanni ji ba comme ni ko ñi ma jiitu waxe naal yi nga xam ne waajuram yi ak magam yi naaloon nañ ko mu fekk ko fi mu àggale yépp ba naal naale boppam ba àggale ko tanu ànd ko ak moom waaye di mboo leen koo xamante ne bis bi tax na laa jóg nga mën a ñëw walla nga mën a ñàkk a ñëw yéen jooj yëpp ñu ngi ciy jaajëfal ñëpp di sant bu baax a sëñ bi ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ngir jàppale daayira Hadaayaqul Fadaa'il soppee sëñ Massamba Kanni ndax saa boo xamante ne ndigal jóg na bu daayira bi jógee itam da cay boole lépp loo xamante ne moom la moomal boppam boole ceeg di leen nemm ko itam saa su nekk boole ceeg itam sagoo leen lool nag yëg leen lool ba tax képp koo xamante ne yaa ngi ci daayira bi da nga def ba def loo xamante ne mënoo ko ngir bëggug sëñ bi nga xamante ne moom ngay jiital kon loolu sëñ bi ñu ngi lay xamal ne ñi ngi lay ñaanal say taxawaay yàgg lool te mu ànd ak wér waaye ñu ngi lay xamal ne itam ñu ngi fet takkaat sunuy laxasaay toogaat jatuwaat ci sa ginnaaw di déglu ndigal léggéey bi nga xamante ne nekkoon nga ca fekkoon say waajur commencé ko ak say mag te nga def ca lu kawe njort lool ba mu àgg fee moo yegg ñi ngi jatuwaat di xaar liggéey bii nga xamante ne songaat nga ko dina xamal ne foo ci foo ci joxoñ rek ñu ñu jëm foofu la nga xam ne ñu ngi koy ñaan mbooleem koo xam ne euh, yaa ngi ci boppi kër sëñ Massamba Kanni yi mooy comme ni ko sëñ bi waxee sunu bokki taalibe yi nga xamante ne ñoom la ñu war a àndal ci daaira Hadaayaqul Fadaa'il bii ñu soññal ñu leen ñu ànd doon wenn say fas yéene doon mbooloo moo xamante ne lépp lu sëñ bi bëgg rek ñu xëy ca bu dee daa bëgg ñu gond ca ñu gond ca bu dee daa bëgg ñu fanaan ca ñu fanaan ca ba ba mu am ba mu amee ko nam ko bëggee loolu ñu ngi ciy soññi ñu ngi ciy ñu ngi ciy ñaan di ci yalwaan mbooleem ko bunti kër sëñ Massamba Kanni yëpp di tàllalaat sunu loxo bu baax mbooleem mbokki taalibe yi di xam ne kër gu kër gu nekk la fa nekk taalibe yi ñoo ko fa def kër gu nekk la fa nekk taalibe yi ñoo ko fa def nga la waaye nañ ñëw àndandoo di waxtaane sunu kër gii ba lépp loo xamante ne kilifa gi bëgg na ko rek ñu mën koo defee na nga xamante ne noonu la ko bëggee ñi ngi sant bu baax nag di wax ne liggéey bii nga xamante ne moom la sëñ bi dëngal te euh, ñu teg xeer wi tey saa boo xamante ne sëñ bi joxe na ndigal fu waay man a nekk ngir yàlla na nga ñëw ñu ànd ak moom ci turu daayira Hadayaqul Fadail ndax buñ ko defalul it ko deful itam ñeneen dañ koy def waaye nañ fexe ba li nga xam ne mooy daayira Hadayaqul Fadail bu soppee sëñ Massamba Kanni def ca lépp loo lépp noo taxawaay boo xamante ne sëñ bi bëgg na ko rek ñu taxawee ko ci ndax wala kulli al bu doon jinne yee ñëw defal ko itam des na ko defal kon loolu ñu ngi leen ci soññi bu baax a baax a baax a baax di sant bu baax a baax ba suñ mbokki soxna yi nga xamante ne ñoom lañ àndal liggéey bi ci njiital soxna Faati Mbay ak soxna euh, Ngone Siñaan ak soxna Awa soxna Anta Samb waaye ci soxna ci euh, njiital itam soxna njoogo Njóoba soxna Njóoba Géey ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bundi kër sëñ Masamba Kanni yi te ànd ak ñun li nga xamante ne mooy daayira Hadaayiqul Fadaayil soppee sëñ Masamba Kanni maa ngi jégalu lu baax nag jëwriñ ji nga xam ne moo jiite kër gi di mu jiite daayira bi di Cheikh ma di sëñ Massar Sow nga xam ne mooy président daayira bi ak adjoint bi nga xamante ne mooy euh, sëñ Dame Diop ñoo nga xam ne ñoo liggéey bi ñoom laa waroon a jiital ci liggéey bi waaye nag xam nañ yéene ji fi nga xamante ne euh, foofu la toll xanaa kaddu gu nu bett la rek ñu ngi jégalu bu baax ci kaddu yi nga xamante ne ñu ngi koy sànni ci sunu kanam kilifa yi di waxaat ni sëñ bi di ñaanaat bu baax a baax sa commission yi nga xamante ne itam ñoo taxawee dëkk bi ñi ngi lay ñi ngi leen di ñaan bu baax a baax a baax li nga xamante ne mooy wàll wi nga xamante ne waa dëkk bi war nañ koy séddu saa su nekk ci li nga xamante ne mooy dëkk bi loolu itam ñi ngi lay ñaan ñi ngi leen di ñaanaat bu baax a baax a baax ñuy ci nemmeekuwaat li nga xamante ne mooy ñi dëkk ci dëkk bi ndax ay taalibe rek a fi dëkk te itam lépp loo xamante ne lu askan wi moom la kër taalibe yi doonga ko moom lépp bu ca waa Daaru Xaddim seen wàll itam nañ xam ne yeneen quartier ña nga cay am seen wàll kon nag nañ nañ ñu dimbale ba lépp loo xamante ne askanwaan ko am ko war a am te mu jëm si ci ñoom waa Daaru Xaddim jot ci seen wàll ndax itam kenn gënu leen cee yey bari na lu ñuy dégg nag ñu ne Daaru Xaddim day dëkk boo xamante ne dañ koo validé wut te ministre de l'intérieur loolu itam bëgg nañ kilifa yi saytul ñu ko bu baax a baax a baax a baax jooy yi ci dëkk bi daal métti na te dara war a waralu ko lu dul yeneen quartier yi di am te ñi dëkk ci dëkk bi duñ koy du yegg si ci ñoom loolu itam ndax comme ndigal day ñëw jaar si ci ñun ñu koy jotale ci mbokki talibé yi bu amee loo xamante ne ay gàllankoor la lu war a jëm si ci mbokki talibé yi itam bu lu mel nii amee dañ ko ci jooytu yëpp ba bañ xam ne lii njàmbat la ci mbokki talibé yi te nag moom fu mu war a jógee mu nga fay jógee di dem ci nit ñi xëy na waa waa Daaru Xadim ñoo ci jotu seen wàll waaye loolu itam ñu ngi la koy ñu ngi ñu ngi ci euh, kii ñu ngi ñu ngi ciy ñaan bu baax a baax lii nga xamante ne itam mooy wàllu ndox mi nga xam ne euh, ku nekk xam ne ne am na jafe-jafe gaa ci dëkk bi waaye nag daaru xaddim moom yelloon na nag seen jafe-jafe ndox mën a bañ a bari mañe bañ a mañ gàtt mën a gàtt lool ndax itam ñi ngi forage bi te wax dëgg yàlla da ngay euh, soxla fii ndox doo ko mën a am nga daal di jéggi bi côté ba le di euh, am ndox mu bara bara bara bara bara nit ñi dañuy liggéey ba wàcci war a noppalu jógaat dem wan ginnaaw forage bi côté bee wala wan ko ko côté bii daal di root ba doyal loolu tax dëkk fii ci dëkk bi doo ko fi mën a am loolu itam ñu ngi koy dénoncé bu baax a baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aouzu billahi min maydi li xayri rida wa min sududi amma sunna aw furida alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawi nawali waali wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida barkeb Seexuna Ahmadul Xadim mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi Seex Muhammadul Muntaqa di ko ñaanal suñu borom sàmm ko defal ko ak wér ba liggéey bi muy liggéeyal Seexuna Seex Ahmadul Xadim yi ci toolu lislaam bi mu defe ko nu kawe njortam ak njortum bépp jullit di nuyu bu baax itam alaaji Fallou Bousso Cumbuleen mii nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp njabootu sëriñ Massamba Kanni Bousso di ko ñaanal moom itam suñu borom sàmm ko aar ko wéral ko te yàggal ko fi ba lim bëgg a liggéeyal Cheikh Massamba Kanni ci toolu Cheikh na Ahmadul Xadim bi mu defe ko na mu ko bëggee te kawe njortul bépp jullit kàddu yi nag du doon kàddu yu gudd ndax kàddu yu cant mënut sëriñ bi daf ñoo jox ndigal ndigal li itam sëriñ Seexuna moom sëriñ Maram moom Baye sëriñ Maram mi nga xam ne mooy taw sëriñ Masamba Kanni di jëwri ni sëriñ bi ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal sëriñ Masamba Kanni moom la jox ndigal lu kàddu ci turam sëriñ Seexuna itam jox ma ndigal man ngir ma boole ñaari kàddu yooyu yëkkati ko ci kanamu mbooleem ñi nekk kon bu fekkee am na lu ci juwat yi nanu ma ko jéggal te xam ne dama taxaw taxawaay boo xam ne li ñu may liggéeyloo ëpp na ci man xam-xam bi matewu ko làmmiñ wi leerawu na waaye yéene ak jëfe ndigal rekk laa ci jublu di ñaan nag barkeet la Serigne Touba Cheikh naa Amadou Khadim waxoon fekk suñu ci ba mat ñoo dimbali muy laa tafaalu shay'an bi xayri idni fal idnu shartun fi xaboori shay'an kàddu yi cant yi sëriñ bi dafa wax ne nañu ci jiital njabootu maam Cheikh maam Cheikhu Omar Bousso ngeen gën koo xam ci sëriñ Cheikhu Bousso njabootam gi nga xam ne ñoom ñoo teew fii tey jii def délégation boo xam ni ku gis ni ñu ñëwee di nga xam ni jàpp naa ne bu doon bisub Serigne Cheikh Bousso itam mënuñu ci weesu mu toll nii ñu ci def tey te ba ñu jàppee bis bi ba tey jii ñu ngi ciy jokkoo di ci waxtaan ñu di ci wane ak yittewoo di ci wane ak safoo ba noppi di sigiree bis bi ak cër bi ba ni ñu accès ci tey 17 heures lañ fi ñëwoon te ku ne xam ne ne liggéey bi ginnaaw timis lañu ko tàmbali te ñoom ña nga dajee woon ña nga dajee woon ca seeni kër bi 15 heures jotee kon dajee nañ 15 heures ba 17 ñu doog a ñëw bi ñu ñëwee itam ci tàngaay bi ñu toog di xaar ba ñu julli timis ba noppi doog a tàmbali loolu nag day wane ni cër bi sigiree nañ ko safoo nañ ko te neex na leen kon sëriñ bi mi ngi leen ci sant bu baax ci yët googu waaye day mel ni nag bu ngeen doxalee noonu itam day mel ne du bett kenn ndax sëriñ seexu mi nga xam ne mooy seen maam di suñu maam ñun ñëpp ñëpp xam nañ leen doon ci suñu Masamba Kanni ak bokk gi leen yàlla boole yemuñu ci bokk way jur muy sëriñ bu soobe doom waaye dañu cee boole sëriñ seexu di nijaayi suñu Masamba Kanni ndax soxna Faati Balla Kubra mi nga xam ne moo jur sëriñ Seexu muy ab taawam di taawu sëriñ bu soobee soxna Faati Balla moomu ak Aysa Balla mi jur Kanni Mbàkke mi jur sëriñ Masamba Kanni ñoo bokk ndey ak baay keroog bi soxna Aysa Balla wàccee ab liggéey ci kër sëriñ bu soobee mag ñi dañoo def yëfi mag ne néegu soxna Faati Balla ëpp na teg kon nañ wut mbokk mu mel ne moom ku am taxawaay bi mu amoon wuutal ko fa mu yeggale ab liggéeyam bi ñu xoolee ka ko ko waroon a wuuti di soxna Aysa Balla bokk moom ñaari waajur soxna Aysa Balla dundatut waaye am na doom juy dund ju tudd soxna Kanni Mbàkke di doom yi Moor Jee mu Ibrahima Awañan ak soxna Aysa Balla moom may wax mu am Balla Aysa ñu ne kon nañ jël Kanni Mbàkke wuutal ko ci néegu waajuram mu jigéen woowu di soxna Faati Balla ba ñu ko fa andee it mu yeggale liggéeyu soxna Faati Balla suñu borom fayee ko fa lu mel ni la mu fayee ndax soxna Faati Balla dafa am ñetti doom yu góor ak benn bu jigéen ci li dund li ñu xam muy sëriñ Seexu Buso di sëriñ Mbàkke Buso di sëriñ Masamba Faati Buso ak soxna Xari Buso mi nga xam ne mooy maam yi sëriñ Abdourahmane ñang ñii toog bi nga xamee ne soxna Faati Balla noppalu na ñu jël doomam Kanni Mbàkke andi fa moom itam mu am fa ñett yu góor ak benn bu jigéen di sëriñ Masamba Kanni sëriñ Mbacke Kanni sëriñ Makhtar Kanni ak soxna ka Kanni mii wajur Sëriñ Abdou Khadir kon day mel ne suñu borom yéene ji mag ñi amoon ci soxna Faati Balla moomu yeggale nañ ko ci soxna Kanni Mbacke moomu kon bis bi yéen seen bis la luñ fiy wax yéen lañ koy waxal luñ fiy jëf yéen lañ koy jëf bisu sëriñ Seexu Buso bu ñëwee itam lu ngeen ko wax nun ngeen ko waxal lu ngeen ko jëf nun ngeen ko jëfal kon sëriñ Murtada ak njaboot yi mu mel ne Serigne Cheikh Bousso oustaz ñëwoon na ak kilifa yu bari ak ñi ngeen àndal ñëpp na ngeen xam ne njabootu Serigne Massamba Kanni ak njabootu Serigne Cheikh Bousso benn lañ Serigne bi fi nekk yi noonu la mas di doxee boole ñëpp yilif kilif teekum Mbusoobe mosula ñàkk a doon benn Serigne Cheikh bi fi nekkee moo boole woon njabootu Mbusoobe gépp yilif sëñ Massamba mu sëñ Abdourahmane mii nekk li na ma nee na jëlee sëriñ ci Serigne Abo Isma dëkkoon usine benn tali mu jëlee ci sëñ Modou Khalifa Niang Bousso mu ne ko bis day toog nañ ci néeg sëriñ Seexu Bousso booba Bousso bi gépp bu ñu xëyee ci kër sëriñ Seexu la ñuy dem ñëpp fa la ñuy toog fa la ñuy fa la ñuy def lépp nee bis ñu toog fa am ku ñuy wax sëriñ Moor Saaw dëkk ci Caawee ñëw wax sëriñ gis mbokk yi ni ñu dajee ci kër sëriñ Seexu mu wax sëriñ Seex Buso ne ko ay aw waaye ndaw yow day ñeenaa la lool yow sëriñ bi yow ñi nga xam ne da ngaa say bokk te ñu nangu laa topp loolu day dëggal ni kon sëriñ Seex bi mu fi nekk bokk yëpp ci ginnaawam lañ toppal bi mu fi jugee itam bokk yëpp ci ginnaaw sëriñ Mbàkke Buso mi fi magoon bi mu fi jugee itam keneen taxu ba jamono si tey jii ki mag ci njabootu kër sëriñ saa Buso ak kër sëriñ Buso bi ñaari kër yooyu genn la moo tax ku fa mag yaay boole ñaari kër yëpp yi def ne nii ki mag ci njabootu mbusoo bi yëpp sëtub sëriñ saa buso moo boole kër sëriñ mbusoo bi yilif boole kër sëriñ saa buso yilif muy sëriñ mbusoo bi ma ca bangaat dëkk boori Thiès kon day mel ni loolu lu am solo dañu di ko fàttali li ci topp ci beneen tomb bi mooy sëriñ bi mi ngi sant bu baax a baax mbooleem mbokk yi nga xam ne teew nañ waaye di beral cant ak Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi toog toogaayu Cheikh Mouhamadul Khadim keroog bi nga xamee ne bis bi jublu si na sëriñ Fallou mii def na délégation ànd ak ay rakam ak i doomam dem ba yëg ci sëriñ Mountakha laaj ko ndigal ne ko sa ndigal la ñuy ci bis bi waaye itam sa ndigal la ñuy déglu ci tegum xeerum jumaay Daarul Khadim ndigal loo ci joxe ñu jafe ko ndigal loo ci joxewul ñu dellu ci ginnaaw ba nga joxe ci ndigal sëriñ bi ne leen jox naa leen ci ndigal na ngeen ko defee ni mu jaadoo te dinaa ko ànd ak yéen ba lépp mat noonu la ko defee itam ndax tey jii bi ñu xëyee ci bëccëg yabal na fi doomam muy sëriñ Abo mu ànd ak sëriñ Muntaxa moom sëriñ Mor bu Sëjeen ànd ak sëriñ Mamoor Mbàkke mi nga xam ne lépp sëriñ bi la ñoom def nañ délégation bu mag a mag ñëw indi fi ay teraanga yu ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha sëriñ bi itam ne leen bu ngeen demee wax leen sëriñ Fallu ne ko foofu yi mu nekk ci Daarul Xadim man mii la fa nekkal lu mu fay def it man ko fay liggéey bi mu song yi danañ ko ànd ak moom ba mu jeex sëriñ bi mi ngi yees la ak cantam ak ngërëmam ak doyloom ci Cheikh Mouhamadou Mountakha bi mi ngi sant itam sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdoul nga xam ne moo yilif kër gi sëñ Cheikh ñëw ci digg naaj mu tàng bi di tàng tàng toog fi xaar sëriñ bi ba noppi mu toog fi waxtaan jël bi def ko li bisam kon bi ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaay yi at mu jot moom bis bi bisam la penc mi am pencam la njaboot bi ak njabootam la moo leen yilif mu yilif këram sëriñ bi mi ngi sant itam sëriñ Fallou moom sëriñ Abdou Khadir nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha yebaloon mu ñëw teg xeeru jumaa ji fii ci penc bi teg nañ xeer wi tey jii ci ngoon bi loolu daa danaa ci ñëwaat ci sama mujj kàddu lay doon incha allah sëriñ bi mi ngi sant bu baax itam mbooleem kilifa yi nga xam ne teew nañ fi waxtu wi xaw naa bu fi mu ne te bu ñu bëggee duggaat ci lim bi dina xawaat jëlaat temps te lu baree bare ci lim bëggoon na indi ci ay kilifa bàyyi daam sama doom ji doon wax léegi andi na ko tudd na leen li mu ci wax mënuma koo weesu kon sëriñ bi mu ngi confirmé waat loolu yi nga xam ne sëriñ daam yëkkati na ko ci ay kàddu sant ko mbokk yooyu sëriñ bi léegi moo ma wool boppam ne ma na nga ma santal sëriñ Abdou Lahad Mbacke Gaïndé Fatma mi toog sëriñ bi ci ay yitte la nekkoon maak moom bi ñuy jokkoo léegi am ay yitte yu mu doon dox waaye da koo dagg ñëw ci bis bi ngeen fekkee si ko ànd ko ak ñun loolu nag sëriñ bi sant na ci bu baax a baax njaboot bi itam bég nañ ci waaye sëñ bi maa ngi lay seedeel nii sëñ Abdoul Ahad mii 2017 booba dama doon politique un kilomètre ndox la yëkkati defal moo ko fii ci Daarul Xaddim waa sancaan yi ñi ngi fi mën nañ koo seede mi ngi ci ginnaaw ci sancaan yi booba metti woon na ndax ndox mi ñu doon naan amoon na caf ko boo xam ne man demoon naa ba mos ko mu amoon cet ko boo xam ne xawoon naa doy waar ci ndox muy dem ci biiru doomu aadama muy jël un kilomètre ndox jël xaalis bu bari bi ko war a fay teg ko ci sama loxo ma ñëw fay ko ñu liggéey ko te booba ak tey jii laaju ko li lijjantiwu ko jéemut a xam sax ndax def naa la moo kon am def moo jéemut a xam ndax xaalis ba ma joxoon dama koo lekk wala dama koo def te sama koo kon loolu yi def na ko fii maa ngi la koy seedeel te di ko seedeel mbooloo euh, ni sëriñ bi taxawu na dëkk bi ci wàllu waaye mel na ni am na casquette bu am solo boo xam ne moom sol na ko muy teew na fi ngir yàlla ak bokk jëmmi sëriñ Touba yi waaye sëriñ bi ñu ngi leen yóbbante dëkk bi am na jafe-jafe yi métti yoo xam ne am na fi jafe-jafe yooyu bokk na ci jafe-jafe ndox dëkk bi daanaka du am ndox robinet yi du xelli mbaa bu xellee balaa xelli waat yàlla xam te forage baa ngi nii bokk ci suufu Daaru Xadim Sëriñ Abdou Lahad Mbacke moo ko fi def lu woon forage ci ndox yi gën a neex ci Touba la bokk waaye ngir mu mën a wàcc si ci dëkk bi ban jot ci loolu lu jafe-jafe la kon ñi ngi la koy seedeel te pexe yooyu ci mën a dimbalee itam nga dimbalee ñu ko ci ndax dëkk bi soxla na ko euh, dëkk bi itam am nañ jafe-jafe yi courant bu doy boo duggee ci biir sancaan yi bari na lool li ne fii ci ay sancaan ëpp na ñaari junni buntu kër sancaan yi dem na ba àgg ca bustaan fa ñu digaloo ak tawfeex te jafe-jafey courant ak jafe-jafey ndox lu ñuy dund la kon sëriñ bi ñu ngi la koy seedeel te di ci sàkku loo ci man ci ay pexe loolu bu sa domaine yoroo ko liggéeye woo ko itam waaye nag pexe bu jeex loo ci man ci ay pexe ñu ngi la koy gaaral ci kanam suñu kilifa yëpp ndax waa dëkk bi ñoo ma ko yóbbante ne ma naa leen ko gaaral beneen jafe-jafe bi fii boo xam ne bu ñuy dund la loolu xëy na naqari wutal bi muy jafe-jafe transport bu ñu génnee bëgg a dem ci biir dëkk bi tali bi mën nañ fee taxaw lu mat une heure de temps yoo xam ne benn tata moo fi jaar muy lii numéro 3 bi di dem ba ca boori forage ba waaye dinañ fi taxaw lu yàgg di ko xaar duñ mën a am accès ci oto yooyu. mu mel ne am na oto yu ndaw yoo xam ne dañuy daw fukk fukk mbaa fukk juróom fukk juróom ñoo xam lim ba nam toll bokkut ak tata yi buñ mënoon di yegg ba ci pénc bi loolu foog naa demoon nañ ba ca si Moussa sëñ Alaaji Baara ba mu woon ndigal ne sëriñ bi bu ko woowee. dana ci def ay jéego kon foofu lañuy jaare santaare bu baax a baax maire bu Touba daaw fii laa taxawoon ba mu deful dara wax ne deful dara ren nag def na ay jéego yoo xam ne góorgóorlu na ci man personnellement doon naa ci jokkoo ak seen Sidi Mbacke moom suñu seetoonam si ñëpp laat mi nga xam ne adjoint rek ci maire bi moom tam mu def ci ay pexe ba am la ak mi nga xam ne mooy maire bi jot ci lépp lu ci soxla woon muy lu jëm ci wàllu éclairage public bi mu yokk lamp waaye lépp lu jëm ci wàllu set setal ci xeeti kër yi yi fay ne day am yoo xam ne du jar tudd waaye jël na ci ay décision sous-préfet bu ndaam itam moom tam soññee na woote soññ waa mairie bi taxawaay yi ñu war a am ci màggal bi ñu taxaw ko kon sëriñ bi mi ngi leen di bu baax baax te di leen gërëm di leen tàllal loxo yi itam ci jafe-jafe yii ma tudd ñoom la gën a war ci si Abdou Lahad mii te jàpp naa ne ñoo ci war a gën a góorgóorlu donte ne yorul ndoxum Touba ndoxum Touba maa ko raxmat yi moo ko yor waaye mel na ne xaw nañoo lokk ci jafe-jafe yi ni muy demee kon daal bépp képp koo xam ne am na ci pexe ñu ngi ko ci tàllal loxo bu baax. sëriñ bi ñu ngi sant bu baax itam waa sapeur pompier ci suba ba léegi ñu ngi fi taxaw noppaluwuñu tooguñu ngir lu jagal bis bi ak organisation bi kon sëriñ bi mi ngi leen di sant bu baax bi leen gërëm waa sapeur pompier. sëriñ bi mi ngi sant bu baax di gërëm itam waa Xuddaamul Xadiim di ko tàmbalee sëriñ Amsatu ak sëriñ Bas Coro mi nga xam ne moo mooy coordonné liggéey bi. sëriñ Modou man bi ah waaw sëriñ mu sëriñ Modou sëriñ Abdou Xaadir moom waaw màggal gi ak màggalam xam liñ def lépp moom lañ koy defal teew na fi léegi. sëriñ bi mi ngi sant kon daay Xuddaamul Xadiim bu baax ci seen taxawaay ñoom itam ci suba ba léegi ñu ngi fi tooguñu. noppaluwuñu daanaka lekk bu normal sax lekkuñu ko naaweel sécurité itam ñu ngi fi gis nga léegi ànd ak sapeur ak xoddaamul ci liggéey bi sëriñ bi mu ngi sant ñoom ñëpp di leen gërëm sëriñ bi mi ngi sant bu baax itam ak gërëm mbooleem presse bi nga xam ne teewoon nañ fi muy waa Rafa TV waa Mbacke Kajoor TV waa Média Act ak waa Almouridiya sëriñ bi mu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay ak waa Tawfekh Production ñoom moom Euh, ba ñu tàmbalee ñëw yàgg na xaaruñu ñu di leen woo at yëpp ñu ngi ànd ak ñun bis bi sëriñ bi mi ngi sant bu baax itam rajo jànt bi FM ak sëñ Góora Ndiaye ndaanaan mi at mu jot taxawaay yu am solo lay taxaw ci liggéey bi ci préparation bi ba ñu àgg ci bis bi sëriñ bi mi ngi sant ñëpp te di leen gërëm euh, mu mel na itam kon loolu mooy li ëppoon solo ci kàddu cant yi ci des dama koy dugal rek ci kàddu yi cant yi bàyyi daam doon dugal léegi maa ngi ñëw ñooñu ñoo bokk liggéey bi ñoo ñu dañ leen di ñaax duñ leen sax sant ndax seen devoir lañ doon def sëriñ bi mi ngi sant bu baax a baax ak gërëm sëriñ bi mi ngi sant bu baax ak gërëm njabootu kër gi njaboot gi rek boo ñu ko waxee mooy ñi nga xam ni liggéey Serigne Touba bi moo leen boole ak Serigne Massamba Kanni ndax loo mën a doon ci kër gi na la doomi Serigne Massamba Kanni jur li ñuy liggéey Serigne Touba yi liggéey Serigne Massamba Kanni bii Serigne Massamba Kanni bii bu ci sa yow néew bi bu ci sa yow néew bu ñuy wax njabootu sëñ sëñ Massamba Kanni boo ko wóote sëñ bu mag bi bu ñuy wax ak njabootam moo ñi jaayante ak moom te doon ko liggéeyal moo tax doom ju mas a jur nga jaayante ak moom liggéeyal ko kon bu ñuy wax njabootu sëñ bu mag bi mooy ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi koy liggéeyee kon njabootu sëñ Massamba Kanni bi bu ma ko waxee mooy ñi nga xam ne liggéeyu sëñ bi moo leen boole ak kër gi loolu nag sëriñ bi mi ngi ci sant bu baax daayira daayira Hadaa'iqul Fadaa'il bi nga xam ne mooy lëkkale fédération daayira yi sëñ Massamba Kanni yëpp sëriñ bi mi ngi leen di soññ ngeen gën a feddali seen laxasaay gën a góorgóorlu ndax liggéey bi day doo ko tàmbali jumaa ji nga xam ne moom lañ teg xeer wi tey jii bu ñu xoolee li ko war a tabax gàtt gàtt dem na ci téeméeri million ak juróom fukk daanaka loolu nag xéewal la xaalis la boo xam ne tuutiwul waaye jërub muy jaaxal kenn ci ñun muy sët yi muy ñi nga xam ne mooy ñi ñu bokkal si Masamba Kanni ci ak jaayante bu mu jaaxal kenn yoon murit amut ay milliardaire waaye ay jaayante kat dong la li ñu xam ci ay milliardaires ci yoon wi bu ñu leen doon lim jàpp naa ni ngir ñu am ci fukk dana jafe waaye lii Serigne Sam doon wax léegi ci waxtaanam ñi ngi koy sant moom cantu boppam la am wax na ci biir jumaay njaareen ba ko Serigne bi di tabax booba ci jamonoy crise la jumaay Touba Cheikh Moustapha ba mu koy tàmbali di ko tabax di ñod di bi di ko indi Touba booba ci jamonoy crise la xaalis amul dara amul université Cheikh Mouhamadou Mountakha bii ci jamonoy crise sanitaire bu metti la ko sëriñ bi yëkkati tabax ko ba ñoo ngi ko war a tàmbali année scolaire yi ci année bii ñu nekk mu njàngum alquran mi di njàngum mu kawe mi loolu day wane ne nag yitte ju kawe gi moo mas nekk alal yi murit nag kon nañ ci roy bu ñu ci royee jumaa ji danañ ko yeggale ci biir bu gën a gàtt ci nu gën a gàttee ak nu mu gën a mën a yombee danañ ko def ni ko sëriñ bi bëggee te dañu ci am benn jafe-jafe néegu yàlla la nag wa anal masaajida lillaahi la suñu borom wax ci alquran falaa tad'uu ma'a llaahi ahadan ginnaaw néegu yàlla la nag du néegu sëñ Masamba Kanni du néegu sax sëriñ bu mag bi néegu yàlla la jaamukaayu yàlla la fu ñuy kennale suñu borom foofee lu ca waay def suñu borom nga ko defal te njëmbat li gën a baax nag mooy njëmbat li nga xam ni mooy li alquran doon wax masalul ladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali habbatin anbatat sab'a sanabil fii kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudaa'ifu liman yashaa wallahu zul fadlin azim ki nga xam ne dafa jël benn pepp bu nawet bi jub see mu faraasu ko ci suuf ku ne xam na ne pepp boobu mooy jur gàncax gàncax boobu màgg ba doon ak gattax gattax mooy jur ay mbool yu bari mbool yu bari yooyee mbool bu ci nekk dina bool lu ëpp téeméeri dugub ci ci ci ci gannaaw te moo ne genn dugub dugub moo ko saxal yërmaande jooju am ci dugub jooju nag yërmaande ji suñu borom dencal ñu ci def sa alal ci yoonu yàlla moo ko ëpp fuuf ndax bu yàlla ne wallaahu yudaa'ifu liman yashaa'u mooy am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem boo xasee bay lim bay ful moom suñu borom ful ji dina ko tàmbalee ci benn waaye nag dana ko yóbbu ba fu kenn mënta lim kon bu ko defee ñi nga xam ne ñi ngi dégg suñu kàddu ñun bu ñu ci xaar kenn la sëriñ Mountakha doon wax ba mu jógee ne ku dem ma dem ku demul ma dem loolu moo ko tax dem moom ñun nag nañ fexe ba jiitu ci liggéey bii nga xam ne moom la sëriñ bi teg xeer bi tey ji ci pénc mooy ku dem ñu dem ku demul ñu dem sëriñ bi nag woote na alxames suba ji bu dellu see fii ci pénc bi ñun ñëpp ñu bokk fi daje mën a waxtaane lépp lu jëm ci liggéey jumaa ji lu waaye mën a defit heure ba mooy ngoon ginnaaw takkusaan bu ko defee lu waay mën a def ci jumaa ji bis boobu bu ko indee danañ ko ko ci defal ñun nag amatuñu droit di sol mbubb mu yees mbaa mu rafet mbaa mu amul njëkk te jumaa ji yëgul amatuñu droit di sol di yor ay téléphone yu amul njëkk te jumaa ji yëgul amatuñu droit itam takk sax ay leneen yu amul njëkk te jumaa ji yëgul kon jumaa ji na nekk suñu yitte ba baa muy egg bu jumaa ji yeggee nag lépp luñ bëgg def ñu def ko kon jumaa ji mooy yitte bi fi ne mooy projet bu mag bi nga xam ne ñun mooy suñu yitte nañ ci def luñu man ak lu ñu mënu sallallahu alayhi wa sallam nag waxoon na nit bu faatoo ay jëfam day dakk yu koy fekk al fa mu nekk ca barsaax di ko dundal ba mu des ñett yooyu nag bokkoon na ca tabax lu mel ne jumaa bu ñu fa jullee tiyaaba ji di la fekk fa nga nekk ndax ku ne xam na ne am na ci kilifa yu baax yi ku ci maca ku ci masa faatu koo xam ne géntoon naa gis ko booba am ñaan yu ma ko warlu loon war ma koo def te dégguma ko ca dis ba ku bokk la ci kër gi bi ma ñibbee Ndakaaru tëdd guddi gis ko mu ne ma ana sama ñaar ya ne ma xanaa xamoo ne fii ñu nekk loolu lañ fiy dundee loola ba ma xëyee laa ko daal di def yéen a ko yor kon la sëñ bu mag bi doon wax mooy indi doa yan faxu xay yan faxu mayitan fil xubur wa yan faxul xayya wa yujibul ujur ñi nga xam ne dañoo faatu te nekk barsax ñaan yi ñuy def di leen ko defal day yegg ba ci ñoom ñi tabaxoon ay jumaa bàyyi fii tiyaaba ji day yegg ba ci ñoom kon loolu nañu ci góorgóorlu bu baax ñun te def ko suñu yitte kon loolu mooy kàddu yi nga xam ne bëggoon nañ koo yëkkati ñu xam ne daarul xaddiim ñu xam ne daarul xaddiim bi ko sëñ ma Massamba Kanni sancee ci ndigalul sëñ bu mag bi 1913 kër sëriñ Touba la ko tuddee loolu sëñ Massamba wax na ko fan yëpp kër sëriñ Touba nag li fi yëg amagul juma dese na ko doon a gun ca nam ko bëggee ndax wajaxal bu yóoti kullaha masajida la sëñ bu mag bi wax ñun ñu bëggee Daaru Xadim bokk ci alali sëriñ Tuubaa ji nañ fexe ba jumaa ji ñëw jumaa ji mooy arme bi nga xam ne mooy mooy mooy mooy charme dëkk bi mooy rafetal dëkk bi mooy taaral liggéey bi bu ñu tabaxee Daaru Xadim ba mel ne or te defuñu fi jumaa ji yegg defuñu dara dañoo échec bu jumaa ji yeggee nag ñu dëkk ci ay seng ak i sàkket nañu wóor ne réussir nañ lépp li gën a li li gënoon a rëy ci suñu liggéey ci àddina réussir nañ ko kon loolu nañu ko bàyyi xel te góor-góorlu ci te xam ne mooy suñu sas bëgguma kàddu yi gën a gudd ci wàllu googu kon kër Serigne Touba la te Serigne Touba dafa ñaanoon yàlla ne sama kër gu ne na doon jumaa na doon jàkka fii nag bi ko sëñ bi sancee tudde ko Daarul Xadim lam ca ñaanoon suñu borom mooy lépp fépp fu ñuy dundalee liggéeyu suñu borom mbaa ñu di fa dundal liggéeyu Serigne Touba ñu de ko defee fii ci Daarul Xadim kon sëriñ bi mi ngi ciy soññee bu baax a baax bi mi ngi sant bu baax a tam honorable député Serigne Cheikh Thioro Mbacké teew na fi bokk ci parti Pastef bokku ci ndaw yi nga xam ne ay ndaw yi Touba yi nga xam ne dañoo teewal dëkk bi ci assemblée national mm-hmm. sëriñ bi mu ngi koy sant ci teewaay bi te di ko gërëm mu mel ne problématique yi ñu fi doon wax léegi moom kon am na ci kàddu ndax ña teewal assemblée ña fa nekk ndaw askan wi lañ fa teewal teewaluñ fa président de la république teewaluñ fa ay chef de parti ah dafa yabal ji liggéey dafa yabal ji liggéey ñu ne Cheikh Thioro suñ Cheikh Thioro kon ña fa teew nañ xam ne teewaluñ fa ay chef de parti ñu fa président de la république askan wi lañ fa teewal yàllante nag ñu xam ko bay waxal askan wi di leen jëfal te ñu bañ a jàpp ne rek seeni parti moo leen fa yóbbu jën assemblée bi rek def ko marché bu tas toujours dëkk ci xuloo ak xeex ak a defante loolu amalu leen njariñ te amalul njariñ wi askan bi kon nañu xam la ko fa yóbbu mooy représenté seeni gox kenn ku nekk boo fa demee jafe-jafe ya sab gox di dund nga yóbbu ko ci assemblée ba ministre ba nga xam ne moom la concerné bu ñëwee moo xam budget dañuy wote wala yu ni mel nga gaaral ko jafe-jafe yooyu mu yóbbaale ko ci ministère am bu demee man cee liggéey loolu la député di jariñ ginnaaw ba nga xamee ne ñaari njëkk yi jàll na muy voté ay loi ak saytu li nga xam ne mooy doxinu gouvernement bi te saytu doxinu gouvernement bi bokk na ci di jot li jafe-jafe askan wi ba ñuy gouverner jot ci ba mën koo saafara kon sëriñ bi mi ngi leen di fàttali lool bu baax sëriñ bi mi ngi sant itam sëriñ Sam Bousso Abdourahmane bi nga xam ne moo doon def waxtaan bi def na ko ci anam gi nga xam ne euh, moom lañ ko doon xaare mbaa sax bu kawe suñu njort ci li ñu doon xaar ci waxtaan bi sëriñ bi mi ngi lay sant di la gërëm moom ci kër gi la bokk ndax suñu doom soxna Toora Bousso eh, ci waa këram la bokk kon mel na ne ci pencam la toogoon di waxtaan kon sëriñ bi ñu ngi lay sant di la di la gërëm fi may tëje nag bu fekkente ne fàttewuma dara fi may tëje kàddu yi mooy soññaat suñu mbokk yi nga xam ne ñoom lañu bokkal liggéey bi waaw eh, dama fàtte ñi nga xam ne ñoo liggéey bi nga xam ne ñoo ko doon taxaw te ba màggat gi duggee ci seeni loxo ba léegi ci la gën a jàkk ci la lépp gën a baax muy daayira sët ak sëtaat yi nga xam ne ñoo aju ci kër sëriñ Massamba yi sëriñ bi mi ngi leen di sant ci seen taxawaay di leen gërëm mu ngi leen di xaarit ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy tàmbali ci penc mi ci jumaa ji ni ngeen def ba màggal gi jógee fa mu nekkoon ba yegg si fii ngeen di ci góorgóorlu ngir jëlee ko fii yóbbu ko fu gën a kawe mi ngi leen di ci jumaa ji ñu jëlee ko ci xeer wee teg yóbbu ko ci fondation jëlee ko ci fondation yóbbu ko ba mu raase yóbbu ko ba finition incha allah ñun ñëpp ñu ànd taxawu ko julli ko ba balaa yàgg incha allahu taala sëriñ bi mu ngi leen di sant di leen gërëm waaye rawatina nag soxna yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi ñoom ñooy gën di jàmbaar sax euh, góor daanaka li fiy addiyee li ci ëpp ñoo koy joxe ndaje yi ñoom ñoo ko gën a fonk daayira yi ñoo ko gën a fonk togg yi ñoom ñoo koy togg ba neex a jëfandikoo kon sëriñ bi mu ngi leen di sant ci seen taxawaay yooyu di leen ci gërëm eh, te di leen gën a soññaat ngeen gën a fedd li laxasaay daayira yi nga xam ne itam ñoo aju ci kër gi ñëpp sëriñ bi mi ngi leen di soññ ngir ñoo xam ni kër siñ Masamba ni ëpp na kër siñ kër bàyyi sëñ Mara kër sëñ Masamba Kanni ëpp na kër sëñ kër bàyyi sëñ Dame Mara kër sëñ Masamba Kanni ëpp na kër bàyyi sëñ Ablaye wala sëñ Abdourahmane wala bàyyi sëñ Ibra wala bàyyi sëñ Alaaji Fat Njaay yooyu ay kër lañ ay kër ay këraan lañ yu nekk ci biir kër sëñ Massamba Kanni mënuñoo fexe ba ñun waa kër sëñ daam suñ kër bàyyi jàkk te kër sëñ Massamba Kanni boobaa du sax ab sàcc ñun kon jiital liggéeyu sëñ Massamba Kanni bi ci liggéey bu mu mën a doon ndax liggéeyu kër sëñ daam ci biir kër sëñ Massamba Kanni la kër sëñ maram ci biir kër sëñ Massamba Kanni la dugg beneen liggéey ci doomi sëñ Massamba Kanni yëpp bu mu mën a doon ci biir kër sëñ Massamba Kanni la dugg ñoom bu dutoon sëñ Massamba Kanni yéen du ngeen leen xam ba di leen tudd kon na ngeen xam ni sëñ Massamba Kanni mooy ki ñu war a topp mooy ki ñu war a mooy ki ñu war a jiital ci lépp bu jàllee nag jeneen doomam ju mu mën a doon ku mu neex fa nga bokk ak ca ka nga jébbalu muy ci kër gi nga aju ci kër doomam yii nga teg ko ca waaye kenn amul sañ-sañu jël jenn doomi sëñ Massamba Kanni sama bàyyi laa ko tàmbalee man di ko teg ci kaw sëñ Masamba Kan ku ci jël liggéeyu doomi kenn ci sëñ ma Kan yi jiital ko ci liggéeyu sëñ Masamba Kan bii na la wóor ne ngay def doo ci am ngërëmul ka ngay liggéeyal yow muy doomi sëñ Masamba Kan jooju kon nañ jiital liggéeyu sëñ Masamba Kan bi moo xam fédération bi la moo xam daayira yi bu jaree ñu al éliminer lépp luy màggal sax ci doomi sëñ Masamba Kan yi ba mbirum sëñ ma Kan yi gën a dox dañ koy def ndax fii moom sëñ Masamba Kan fi nekk moo doon liggéey moo liggéey ba sëñ Tuubaa fay ko mu am ci njabootam kii kër gi mu njëkk a samp di soxnaam ci mu njëkk a dëkkoo di soxna maram di soxna maram boobu xari kebe sëñ bu mag bi moo ko sampal ci Ceyeen Jolof kon moom lu mu am sëñ bu mag bee sëñ bu mag bee ko jàngal moo ko tarbiya moo ko sampal kër soxna maram moomu moo meññ ñii nga xam ne ñoom lañuy ñuy ak di leen kon nag liggéey bi nañ ko tàmbalee foofu man li may wax ci saa kër bàyyi laa ko tàmbalee moom laa ci jiital ñi aju ci saa kër baay mbaa saa mag yii mbaa sama doom jii di bàyyi daam ci ñoom laa ci jiital ba noppi door ca teg ku ma ci teg nañ joxaat cër liggéeyub sëñ Massamba Kanni bi gën koo favoriser jàmbaar ngeen na ndax jamono ni mu mettee ngeen mën a dajale xéewal yi ngeen dajale bërki démb jox ko sëñ Alaaji fii ci suñ kanam loolu day tegtale ne yéen a ngi góorgóorlu ndax ab millionnaire amul ci seen biir ay góorgóorlu rekk ngeen te jamono metti na te daanaka jamono fii mu toll dajale fukki dépense yu bokk buum jàmbaar dëgg ko man kon li ngeen di am muy néew ngeen di ci xaj-xajal liggéeyub sëñ Massamba kani bii loolu moom seen bopp ngeen koy defal kon lu ngeen ci def na ngeen ko xeet te gën cee góorgóorlu ñi nga xam ne itam ñoo aju ci kër gi di ay sët ñooñu itam nañ na leen wóor ne seen jenn maam yoo xam ne mën nañ ko wutal daraja ju sëñ Massamba Kanni amut amul ci kër gi bàyyi sëñ Marama sëñ Daama sëñ Abdou Rahman ak sëñ Alaaji Fat Njaay sëñ Ablaay ñëpp ci bokk yam kenn ku satoo ci moom ku mën a wutal sa maam jooju daraja ju sëñ Masamba ni amul amul ci kër gi kon sëñ ma Kanni moo doon liggéeyal sëñ Tuubaa ñoom ñu ñëw njabootu ci kër gi di liggéeyal sëñ Masamba Kanni mbaa di liggéeyal sëñ Tuubaa jaar ci sëñ Masamba Kanni kon sëñ Masamba mooy dàtt bi nga xam ne moom lañu war a suuxat bu ñu ko suuxatee ñoom ay car lay yu meññee ci biir garab bi bu ñu ko suuxatee ñoom ñooy meññ ndax kenn gisagu fi datt buy sax ay xob mbaa boog du xob yu ñuy jariñoo kenn gisagu fi datt buy meññ am meññeenteef mu ñuy jariñoo ay saxayaay rek lay jur kon waaye lañuy meññ la ñuy jariñoo ca meññeenteef ma mooy lay saxe ca kaw garab ga ci cer te loolu nag ñi ngi koy suuxate ci datt bi ci suuf kon suuxat leen kër ma Masamba Kanni ji te xam ne loolu mooy liggéey bi nga xam ne moo ñuy xaar ñun ñëpp li may waxe ci sama bopp laa ko tàmbalee ci laa ko jiital ku gis ne nekkuma ca dimbali ma ngir jëmmi suñ Tuubaa nga joxañ ma baaraam ne ma nekkoo ci yoon waa ngi nii ma sant la gërëm la te delluwaat ci yoon kon sëriñ bi mu ngi ñuy soññaat bu baax a baax ngir ñu gën a feddali laxasaay ci wàllu boobu kon day mel ne kàddu yi loolu la woon bu fekkente ne ma dara sëriñ ji bi ngeen gën a feddali laxasaay rek te waajaat te ñu xam ne laxasaay yi dañ koy doog a takkaat kon nañu góorgóorlu te ñu xam ne liggéey bi nga xam ne mooy jariñ ab murit ci sëñ bu mag bi mooy di ko liggéeyal ci sa alal ci sa ñaq ci sa xam-xam yooyu te kenn ku nekk ci ñun am nga lenn loo am ci loolu ñun am na as ndoore suñu am léeg nga am as weccet loolu nañ ciy liggéeyal sëñ bi kon sëriñ bi guddal naa xam naa ne waaye kàddu yi sëriñ bi moo tollu noonu bëgguma woon bëggumaa ñëw di ko ndax li ma ci war a sant bu ma ko santu mbaalu ci manqué man maa koy manqué bi ndax moom li ma wax lu mat la te bëgguma ko woon a tënk muy mel noo xam ne bokkut ak ni mu ko bëggee waaye sëñ bi daal mi ngi soññu ñëpp di soññu murit yëpp itam ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey sëñ Muntaxa bii ci université bi ak lépp lu aju ci yoonu murit sëriñ bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm njabootu sëriñ Mbàkke Kan yi dama koo fàtte woon waaye ñoom liggéey bi taxawaay boo am solo lañ ci taxaw fan yi yëpp ñu ngi koy ànd ak ñun sëriñ Mbàkke Bousso mii euh, xaalis bu baree bari da yëkkati joxe ko ci turu njaboot gépp ngir ñu dugal ko ci liggéey bi yemuñu ca ñoom gone yi nga xam ne ñoo nekk ci daayira bi fan yëpp ñu ngi ànd ak ñun liggéey bi kon ñun itam ñu ngi waajal le na ngir àndaat ko ak yéen fële ca Touba ko jale bu so insha allahu taala di jégg lu baax lépp lu jub ci wax ji nañu xam ne sëriñ bi la rek ak mbaaxam lu ci dëng sama mata di la man ak sama ñàkk xam-xam ak ñàkk mën a wax xëy na ak ëppal ak ëppal bi waaye maa ngi koy tuub te di ko jéggulu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi min may nii li xayri rida wa min sudodi xam naa sunna af rida alhamdulillahi wa salla abada ala allasi bihi lana huda abada sayidina muhammadin wa ali wa sahbihi sawin nawaari wali mbokk yi julli tedd yi ginnaaw bi sant yàlla julli ci sangam bu tedd ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di ñaan la suñu jàmbaar ja Seexuna Ahmadul Xadim suñu borom doon ñu ko xam naa bi di ko sof ci nuyoo mbokk yi baax xabitul xan daykotil muride suñu borom dëgëral ko kàttanal ko te moo leen naal yim naal ci liggéey feew xadi bi suñu borom may ko ak wér ak fekk ak talum àggale ko ak mbooloo ñëwut gépp waaye tamit di ñaanal Cheikh Modou Fadel Bousso xalifa Cheikh Massamba Kanni di ko ñaanal suñu borom may ko ak wér ak gudd fan may ko tamit naal yim naal Cheikh Massamba Kanni mu àggale ko ba naalaat ak mbooloo ñëwut ko seqal ñëpp ñëpp bokk fekk xam naa ne kàddu yi kàddu cant lay doon ndax li ma doon wax man leen docteur Serigne Sam Bousso waxtaan bi fi waxtaan yaakaar naa amul lenn lu ñu mën a sof ma leen suñ jili tamit commentaire na ci commentaire yu am solo waaye tamit dañ profité ngir xataay waxtu bi ak toogaay bu yàgg bi di sant suñ bokk yi bopp yi nga xam ne nooñu fekk si woon du suñuy bokk yoo xam ne ñun ñoom ñoo bokk suñ musóobe waaye bokkaat suñ Masamba muy ñëbatu suñ bi nga xam ne ñoom lañ darjaaloon bis bi ñun ñii nga xam ne ñooy yor liggéey bi ca nekkat yi mbooleem seddi si Masamba kan yi di jox ñu seen kàddu ngir jot lépp ci ñoom ak mboolem yéen bokk yi ci biir ñëpp ñoo ngi sant délégation bi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ci kër Serigne Cheikh di leen sant bu baax ci leen dalal ci di leen tatagal ci di leen massu coono yi nga xam ne am ngeen ci yoon wi waaye tamit xam ngeen liñ bokk waaye tamit xam ngeen liñ seq ngeen rafetal ko lool ca dox ko lool suñu ko seet na ci lool ak xol mboolem njaboot bi ak bokk yi. ndax wax dëgg yàlla diir ba ñëwee ci yéen ak bis bi bu gàtt la waaye def ngeen ci yitte def ci pas-pas xam ne kër gi ngeen jóg jëm si ak kër ngeen bàyyi ko du ñaar benn la loolu bokk yëpp gis nañ ko rawatina ñi nga xam ne ñooy sëdd yi ci yoon liggéey bi daa ko dox jëflante ak yéen kon noo bu baax a ñaan tànk yi ngeen ak yi ngeen yi def ko aw yiw def ko tiyaaba di ñaan jataay bii ak jëflante bi yàlla bu mu doon mu jë mu jëm jëflante ñu ngi sant bu baax bi sant mboolem bokk yi nga xam ne demoon nañ ci ñoom muy mbokk ñoom suñ Bousso bi bunt kër suñ Bousso bi muy suñu mbokk yi nga xam ne ñooy seq ay daayira jëflante ci biir kër suñ Bousso bi kenn ku ne mu yëkkatee suñu tànk ñëw ci yow gis nañ ah, coono bi nga daj ak yitte yi ba ñëwaat fekk siñu ngir ndokkeel ñu ànd nañu ci bis bi kon noo ngi sant ñooña suñu limee ñëpp dañuy juum waaye ñëwee li li muy délégation bi nga xam ne teew na fi dañ dugal ñëpp ndax ñoom ñëpp ñoo bokk si Bousso bi ak mbooleem bokk yi nga xam ne bokki Mbàkke lañ ak mbooleem bokk yi nga xam ne Seex Seex Xadim lañ ñaan nag ñoom bis bi ñoom ñëpp gis nañ seen teewaay noo ngi leen sant bu baax a baax ma leen Serigne Djily lim na leen ñoom ñëpp di sant bu baax mbooleem euh, euh, njaboot bi nga xam ne ñoo leen seqal kër gi ak seq leen liggéey bi muy bokki taalibe yi ak commission yi nga xam ne am na ñoom liggéey boobaak léegi seen pas-pas ak seen taxawaay ak coono yi daj guddeeg bëccëg gis nañ ko ñu ngi koy béral ki nga xam ne mooy suñu kilifa yor liggéey bi di suñu jëwriñ muy suñu seexu naa tam yor lépp suñu fàllu mu xam ne njaboot gi nga xam ne dënk nañ liggéey bi moo leen leen dingoon def nañ lu kawe seen jotu kon nañ leen ñaanal baax baax ñi am man-man am pas-pas di sant bu baax a baax euh, di sant bu baax a baax suñu laxat ka man mi nga xam ne moom lañ dénk maire Touba bi ak boolem mbokk ya fa nekk dafa liggéey te jamono te ñoom wax leen suñuy jàmbat ak ñu bëgg-bëgg suñu bis bii gis nañ bañ demee lañ leen waxoon tamit defal nañ ci la koy suñ jot xëy na ña fa nekk ñu tudd ñëpp ndax ñoom ñëpp day benn ci ñun waaye suñu waxee ba suñu mbokk yi rek ñoom ñëpp kenn kenn danañ xam kon ñu leen sant bu baax seeni taxawaay lañ bëggoon defal leen ci la koy suñ baax sous rawatina action bi nga xam ne moom lañu ñu boole loon ngir ñu dem ngir ñu dem ci njàmm li ñu amoon ngir tawat ko fa gis nañ lañ ci taxawee ndax bañ fa demee di tawat ndox mi gis nañ ne ndox mi wax dëgg yàlla niñ ko bëggee woon am nañ amee nañ ko nu ko rawee ak ak ni ñu koy sant bu baax baax di ñaan tamit moom liggéey bi ñu ko dégg suñu borom mépp li kaw ñortoom di sant bu baax mbooleem ñi nga xam ne ànd nañu liggéey bi rawatina waa sapeur pompier ñoom bañ fee ba léegi ñëg bi ànd nañu liggéey bi ak seen coono ak seen taxawaay bu baax baax di sant bu baax waa Xudaamul Xadir ci turu Sëriñ Amsatu Mbàkke ñoom bi ñu jokkoo ne da ngeen dem teewlu fa seen xam ne da ngeen xam ne bis boobu ak bis la di benn la ci man ñu ngi ko bu baax baax di ko ñaanal suñu bopp moom tamit dëgëral ko di dëgëral tamit mboolem ñu àndal liggéey sécurité bi xam la boo xam ne mboolem li wër Tuuba nañ ci def taxawaay boo xam am solo ñëpp gis nañ ko sant mbokki taalibe bi yi nga xam ne liggéey bi sant mbokk taalibe bi xam moo leen seqal liggéey bi ak fédération yi nga xam ne ñoo sosoo ci biir kër gi ñoom ñooy taalibe yi nekk ci réew mi ak bitim réew kenn ku ne gis nañu lañ la nga xam ne jëflante sas aw sas la woon yoo xam ne toggoon nañ ko ci yow ñoom ñëpp matal nañ ko jaara ko ci ñun ñu njëbbaloo ko sëriñ bi kon ñu ngi koy beral ñu ngi koy seetal sëriñ bi ñoom mbooleem ñi nga xam ne ay fédération la woon biir réew mi ak bitim réew lañ lañ lañ la nga xam ne booloo ak ñun matal nañ ko ko ñu la koy béral ñu la koy seddeel di la sàkk yow nga ñaanal ko nga ñaanal leen ca may leen ak yokkute may leen ndam sant baax boo bokk yi nga xam ne moom lañ bokkal kër gi seeni gis nañ ko rafet na lool ak mbooleem njabootu suñ masam suñ Mbàkke Kanni gi nga xam ne kër suñ ak suñ Masamba Kanni benn la waaye rawatina seen président bi nga xam ne mooy suñ Mbàkke Buso moom suñu xam di suñu xam di bi def na ci lu am solo loo xam ne Euh, defal na ko mbooleem njaboot suñu mag benn ndax xam ne ñaari kër yi duñ benn ñaar lañ xam naa ne buñ dee lim day gën a gudd te du jeex waaye cant mënut a paase cant xol bi seet nag day waral li nga ko wax li nga ko wax rek ko mën wax waaye nañ xam lépp loo xam ne waxuñ waxuñu rek suñu xol a sedd mbooleem koo xam ne limuñu ko rek nañ xam ne xol bu sedd ak mbégte moo tax mu ñu dem lépp ndax jataay bi dafa dem ba am ci ñun lu kawe suñ jot sant bu baax seen bokk presse yi nga xam ne mbooleem ba bi bu commencé ak léegi ñu ngi ko ànd ak ñun na yi nga xam ne doon nañ daan nañ ko amal ci wàccaay yi màggal ñëwoon nañ ku mën ne Rafah TV ak Média Actu ak euh, Tawfekh Production ak mboolem ñi seqal liggéey bi ñëpp ñu ngi leen sant bu baax a baax di ñaan suñu borom euh, ñu ñu fekk ko ay ataat ñaan képp ku teew jotaay bi suñu borom defal lu koy su njot xam naa ne daal nañ xam ne bokk yi sant nañ njaboot sax nañ tali bi sax nañ kon noo ngi si suñu kàddu di ñaan suñu borom may ñu ñu yàgg a teewe ak wax nañ tamit ak Mbacke Kadior TV yi ak euh, jant bi Serigne Gora Ndiaye teew leen bi noo ngi leen sant ñëpp ci kàddu sët yi xam naa li ci des dañuy bàyyi suñu ablaat nga xam ne mooy wax ci kàddu xalifa bi su dikkee mottali lépp wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi loxo yi borom rajo yi suñu sanso yi ñu ngi sant ñu koy muy sëñ Cheikh Thiam liggéey bi lépp rafet na sëriñ bi daa bëggoon sëñ Ibrahima ñaan waaye nee na jox na ko ndigal mu ñaan rafal ma nii bu ko defee lépp fooy talu talal loxo wax amin nan maa wax amin amin bu sa bari amin barke yàlla yàgg dégg yàgg leen rek ci sëriñ bi amin amin